Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 27 août 2024 suñ fa jógee dañuy dem fële ci assemblée nationale ginnaaw scandale bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofa ca ONAS diggante kii di ministre de l'hydraulique Cheikh Tidiane Dièye ak ex directeur du Cheikh Dieng kii di Moussa Diakhaté déposé na daal pétition bi nga xamante 50 000 signatures la ci bëggoon ci diiru ñetti fan am lu ci signatures déposé na daal li nga xamante ni ouverture enquête parlementaire ci kaw tableau Amadou Mame Diop bu assemblée nationale nañu dégg l'honorable député Moussa Diakhaté

amna ñu génn ci ministère bi wax waye mom ministre bi lañ tuumaal té comme yi fi milliards la te ñoo ñu waxon jub jubal jubanti ñu bëgg mu leer li rek mo waral ñu def commission d'enquête parlementaire ndax kat for ne ci sax ne fé ci ministère du transport li ni mel xew na digënté ak Dakar dem dikk ñu bëgg mu leer rek comme ñoo ñu jaay jub jubal jubanti ñu ni leen nak mbay ci sa wewu tànk lii képp doomu motax pour sénégalais xam fu dëgg fété li rek motax ñu def commission d'enquête parlementaire kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo ginnaaw scandale boo xamante ni ci diiru juróomi ci nouveau régime bi dégguñu président yeey ci yàbbi ci premier ministre am le ci yàbbi ci di ministre conseiller bi sax dégguñu mu yeey yàbbi ci ginnaaw yónni ay émissaire pour ñu tontu ko ci place bi nga xamante ni moo tont kii di Moussa Diakhaté nag def na citoyen ginnaaw moom président Diomaye Faye moo yónnee ay lanceur d'alerte woote jub jubal jubanti waaye suñu gisee lu gis lu dëng lu dëngalu ba wengalu te ñoom ba tey ji prononcé wuñu ci am nañu assemblée nationale boo xamante ni mën nañ ko fa jooyee lii rek tax na bu leen leen may majorité à l' assemblée nationale tey jii su ñu demee ubbi enquête parlementaire ñu situer képp kuy responsable ndaxte deniers public nit waru ko lek lu ñepp bok dañ ko war seddo en tout cas ki di Moussa Diakhaté déposé na lettre dama bëgg nak ki di képp kuy député président assemblée nationale dal di ci sukkandiku pour que ñu léral li nga xamante moy lumière bi ki di Cheikh Tidiane Diaye war a démissionné ba ñu léral enquête bi mba premier ministre wala président démettre ko seen fonction mais dafa melni tay ñom li nga xamante ne Cheikh Tidiane Diaye def nako daf leen neex wala dafa am lo xamante ni yëg nañ koy en tout cas kuy woté jub jubal jubanti dañ la ci wara fekk munoo ñu woon ak ci jub jubal jubbanti ñu fekkale ci dëng dëngulu ba paré dal di wengulu en tout cas muy li nga xamante dal ki di Moussa Diakhaté déposé na une ouverture d'enquête parlementaire ci tableau Amadou Mam Diop bu président assemblée nationale pour que ñu leeral scandale bi nga xamante ne moo am fofu ci ONAS